merci beaucoup président Khalifa damay sof sama kàddu rekk ci li président xalifa wax ak li président Déthié wax di gërëm mbokki Sénégal yëpp di leen ñaanal atum jàmm di leen gërëm en particulier ci li xalifa wax ci concert de casserole bi ma ci yokk rek lu tuuti moo di sénégalais yi dañu wax Macky Sall ni ko fukki at ñoo ngi lay déglu trente 31 décembre bu nekk nga ñëw taxaw ci kanamu askan wi lire ce discours mu di chapelet de promesses litanie de réalisation def naa nangami toni ceeb def naa nangami toni dugub def naa tant de kilomètres de route def naa nangami nangam te sénégalais yi gis ñu benn yoon jeexital ci seen dund fukki at nag sénégalais yi tàyyi ci sénégalais yi ni ko ci leadership bu yeewi askan wi ren ñun ñooy wax yow yaa ñuy déglu te yaakaar naa ni won nañ ko ko ndax ba muy def discours ba te xamul lu muy liir ndax casserole yi muy dégg sénégalais yi wax nañ ko lii cee wax li nga fi mës a tëj ci ay nit tëjandoo leen kenn mësu ko fee def ci président ni ñuy luubale alalu askan wi kenn mësu ko fee def fi nga yeggale ci salfaañe ak yàq démocratie masul am ci biir réew mi waaye yaakaar naa ni message boobu dégg na ko bu ko bëgguloon ni dégg itam dégg na ko man nag damay taxaw rek ci benn ci message yooyu moo di scandale yi ñëwaat ci rapport Cour de comptes ñëwaat ci corruption bi ko bi ko lal te nag may wax ni ñuy jël boobu engagement ci kanamu askanu Sénégal ni leen yeewi askan wi du leen ci lâché mukk du bàyyi dossier boobu mukk te duñu ci tàyyi mukk ndax lu ne jaar na fi ci scandale ak graawaay waaye bii ni mu mel ak jamono ji mu ñëw contexte bi feebar yi faatu yi ñàkk gi nga boole loolu lépp li ko askan wi waroon a saafaraa nga lekk ko kooku duñ ci tàyyi duñ ci bàyyi ba keroog ñu koy leeral li tax dossier bi garaaw te bon te sénégalais yi bu ñu tàyyi ci taxaw ci di ko exiger def ko pression xeex ci moo di dafa mënoon ñàkk te dafa waroon ñàkk bu fekkoon jaaral nañu réew mi fi mu war a jaar suñu conférence de presse bi mujj fii laa wax ni président Macky Sall dafa lal doxalinam mooy gouvernance am ci ñaar rek corruption ak impunité ñi ko wër ànd ak moom mu ni leen lu ngeen def baax na alalu réew mi lu ngeen ci jël toppatawuma ko parce que sama coñcoo laa ngi nii dama koy teg ci dossier yi bu yegsee garantiral leen impunité na ngeen rek jël ci kees gi jël alalu réew mi dem politigal ma gëmm nag ay bëtam ci lépp lu ñu mën a def loolu rek mooy stratégie de gouvernance am moo tax ñu naan génie politique la dañu xamul lan mooy génie politique génie politique mooy mooy président bu am vision bu leer jëlee sa réew ci jafe-jafe génnee ko ci situation économique bu difficile réew mi am dal démocratie nga fekk ko mu am fu mu taxaw nga yokk ko ba réew mépp nekk ñi ci naataange au contraire li muy def mooy gën a delloo ginnaaw gën a nërmeel yaakaaruloo ci lu dul sës sa doole askan wi euh, doole force de sécurité yi sa opposition jàpp nit ñi di tëj di xoqatal kooku du génie politique kooku arbitraire la scandale bi li taxoon mu mën a ñàkk te waroon ñàkk mooy wax naa fi keroog ni ñetti kuréel lañ ci tegoon te benn rek bu ci fonctionné woon correctement lii du am bi ci njëkk mooy conseil stratégique bi nga xam ne moom ci boppam moo ko dirigé moom président de la république moo tax ma ni leen ku ñu ci tudd rek dañu la ci tudd gannaawam moom waaye moom mooy le seul et unique responsable. loolu mooy la dimension éthique bu réew amee constitution réew ma di dee mu taxaw ni nous en guerre bi mu nee nous sommes en guerre opposition yépp jóg dem seeti ko fekk ko ca pale ba nekko daal loo bëgg dinañ la ci ànd ak yow ba ñu génnee réew mi ci jafe-jafe yi boo nekkee ci guerre la ñu waroon saafaraa guerre boobu. la ñu waroon jël muy ngànnaay askan wi pour aar askan wi ñàkk ko ba ennemi boobu nga xam ne moo doon ñëw muy virus bi du ñu mën a lor li doon kon suñuy munition ak suñuy arme moo doon xaalis boobu waa ña ko sàcc ñooñu ay traître lañu ña leen bàyyi ñu sàcc ko ay traître lañu. parce que guerre bu amee yow boo bokkee ci soldats yi nga xam ne ñoo war a aar réew mi ngay jël ngànnaayu réew mi di ko sàcc di ko denc duñ la tuddee lu dul traître loolu mooy li nga xam ne mooy responsabilité bi gën a ñaaw. ak bi gën a rëy ci dossier bi nga xam ne am na fa. comité technique bi nga xam ne ministre des finance moo ko waroon gérer gis ngeen fii ki ki ki génn barki démb nekk ci ñoom di jéem a layal naan nangam nangam 6 mille milliards 6 milliards euh, milliards kese la boo boo boolee li ñu sàcc lépp mais loolu amul lu ko gën a garaaw itam loolu rek doy na wax nañ ko fii pour que partenaire au développement wu Sénégal yëpp génnee seen loxo ci lii muy def ci biir Sénégal ndax am conviction ak clarté ni bépp alal bu ñu fi dugal ci réew mi xam nañ fu ñu koy jaaral di ko luubal loolu itam responsabilité am la li tax nag mu gën a garaaw may koy taxaw foofu mooy ma expliquer leen tuuti ñaawteef ak bon bon boo xam ni corruption am na ko ci réew te lii moo fi moo fi nekk noonu lay doxale mooy système am corruption waxuma la sax yàq bi mu yàq ci économie bi ndax dafay yàq compétition entre acteurs économiques yi ndax xaalisu force Covid 19 boobu jox nañ ci marché ñoo xam ni yeyoowuñu marché bi seen i entreprise mérité wuñu ko booba ñu ngi bàyyi ki nga xam ne entreprise am mérité na ko parce que àndul ak ñoom wala parce que xamuñu ko loolu corruption moo koy indi ci réew. corruption mooy tax askan wi dem ba état bi dootul am légitimité danaan ñi jaraluñ ma dara fu leen état bi woo duñu dem gis ngeen ba mu fii nu mu ko tuddee mbiram moomu tuddoon cleaning day xaw ma cleaning day xaw ma bésu set setal yi. bi mu ko fi wootee kan ma ko ci fekk kenn parce que amul légitimité état bi amatul légitimité nit ñi gisatuñ seen bopp ba ko ku mel ni Kagame waxee defee di ko def réewam fële weer wu ne askan wi génn raxas dëkk ba parce que kooku am na légitimité mais kii amul boobu légitimité boo ko boolee mën nga fi nekk di ko xayma du jeex ci jeexital yi nga xam ni dana ko am mais conséquence économique bi bokk na si li tax Sénégal néew doole li tax Sénégal ndóol li tax économie bi baaxul mooy gouvernance bu bon boobu ak corruption bi lim koy firnde mooy donte ñoo ngi wër naan dañuy émergent Sénégal émergent Sénégal nangam amul benn émergence boo fi gis au contraire Sénégal dafa bokk ci ñeent fukki réew ak juróom-ñaar muy 47 yi ñuy tuddee les pays les moins avancés moo tax ku leen ne ay émergence da leen di nax émergence du catégorie bu ñu reconnaître au niveau international communauté internationale mu ngi reconnaître pays développé moo xam moo di pays industrialisé pays riche pays à revenu élevé loo ko tuddee pays développé lay dugg pays en développement catégorie bu ñu reconnaître la mooy pays à revenu intermédiaire pays émergent pays leneen ñoo ñooy en développement beneen bi mooy les pays les moins avancés 47 la ñu ñun Sénégal ci la ñu bokk balaa nga dem émergence da ngay génn ci lii ba pare te génn ci te xayma ya ñu def sax Nations Unies seet ña ca war a génn Sénégal bokkul ci ñi ciy génn ci ñaar wala ñetti at yi ñu jëm donc kooku li mu lay wax amul te li tax nga bokk ci boobu catégorie mooy sa économie day vulnérable ñoom ñu certifié ko sa capital humain dafay faible sa revenu par habitant dafay faible ñett yooyu yëpp dafa dajaloo ci Sénégal boo taxawee naan askan wi dama émergent nangam nangam yaa ngi nax sa bopp te bokk na si li ko indi lépp mooy alalu askan bi ñi ko waroon investir fañ ko waroon dugal ci mbay mi ci càmm gi ci napp gi ci infrastructure wala ci jàngal nit ñi ci l'école yu baax loolu la ñu sàcc yóbbu ko ci corruption génnee ko bitim réew wala ñu def ko ci seen ay compte bancaire loolu nag moo tax ñu ne lii jat nañu taxaw ci ñu exiger waxuma sax transparence mais lii nga xam ni Cour de comptes wax na ko te Cour de comptes ña génn ci ñoom di ko jéem a discrédité di jéem a discrédité cour des comptes ma leen di wax ni loolu rek mën nañ leen cee topp la fait que nga génn rek di am luy ñaawteef yooyu wax ci magistrat wu cour des danañ la ci topp parce que loolu loi moo ko wax ma jàngal leen ko ñoom ñu xam ko parce que dafa mel ni goro bi bi mu koy wax xamul ni loolu am na dafa am benn kii bu tudd loi organique numéro 99 70 du 17 février 1999 sur la cour des comptes loi bi dafa ne article 75 ma liiral leen ko la cour et les magistrats sont protégés conformément aux dispositions de la constitution du code pénal et des, des lois particulières en vigueur contre les menaces les outrages attaques injures diffamations dont ils peuvent faire l'objet maanaam magistrat wu cour des comptes bu defee liggéeyam ci turu askan wi jébbal ko askan wi muy njëriñu askan wi ci information boobu nga taxaw ni politicien encagoulé encagoulé la mooy def nga ko outrage kooku article bi daan na la te mën nañ la cee topp te maa ngi wax Cour de comptes na ñoom comme ñu ngi def liggéey boo xam ne bu mucc ayib la nañu topp lii saisir juridiction yi donte xam nañu ni tant que ñoom ñii ñu ngi fi am nekk di tegi conco ci ay dossier dara mën naa bañ a xew waaye cour bi itam na protéger boppam xam ne lii loi ko ko may constitution ko ko may pour mu aar cour bi ci boppam ndax as askan wi la fi nekkal te am na njariñ donc pour bañ a guddal ma leen di fàttali di fàttali askanu Sénégal yépp ni rassemblement bii ñu tudd pour vendredi incha allah lu baree baree bare moo tax ñu ko ciy def waaye benn ci poñ yi képp ku mu naqadi lii xew ci rapportu Cour de comptes bi ci càcc bi ci nekk lii nga xam ni mu ngi ci rapportu nag yi ñu génnee ko depuis 2016 rapport bu njëkk bi ñu génnee mu épinglé coude épinglé leneen épinglé leneen ñu teg ci conco kii fi nekkoon présidente OFNAC bi muy dem nee na transmettre nañu 73 dossiers pour ouverture d'information judiciaire def ci ay investigation loolu lépp ngi ci suufu conco yi lii ñuy yore ministère yi di caxat-caxatee alal ji képp ko xam ne loolu lépp metti na la nii ñu yore askan alalu Sénégal te bëgg nga mu dakk ñoo ngi lay ñaan nga jóg vendredi bi incha allah à la place de l'obélisque nga ñëw ànd ak Yewwi Askan Wi ak tous les patriotes les citoyens les républicains et les démocrates ñu ànd pour exiger de Macky Sall mu assurer transparence et ñi nga xam ni sàcc nañu alal ñu jébbal leen justice donc mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm loolu laa bëggoon yokk rek ci li nga xam ne nii euh, leader yi wax nañ ko avant merci beaucoup